jërëjëf ab euh, Abdoulaye Diop euh, jërëjëf passe partout Yacine Pouy maa ngi lay nuyu auditeurs ak internautes yi nga xam ne ñu ngi nuy euh, bàyyi xel RFM 94 point 0 yéen a ngi seen journal des faits divers and ànd ceeg Mamadou ndoy baan ak Mamadou Mohamed Ndiaye président jënd na avion de tabarkàlla yàlla na jàmmam yàgg Ndiaye maa ngi siyaar. maa ngi delloo siyaar bu baax a baax a Ababacar. maa ngi maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu waa Sénégal. Ah. am mbégte ànd ak ñoom ci xalaas maa ngi nuyu inspecteur Ndoye Bane. dégg naa nga ko yuñ juróopalaan bi xëy na du ñàkk mu am ci xibaar yu gën a yaatu yuñ ci yor. <laughs> kay dama koy wax rek président euh, na kii ak jàmm nan lañ koy waxee. na waaw mu ràpp ak jàmm. waaw man tam loolu laa koy. waaw jàmm na ràpp ak jàmm daal laa ci wax man <laughs> ci suba gi laa ko dégg. ginnaaw avion bi moom avion réew mi la. kon ah. kenn woowu la ne la dañuy jënd avion ak yooyu. ak bokk gi nga ci bokk. mais attends mais loolu loolu moom xëy na li mu def am na leneen lu lu ko gënoon a doon farata ci réew mi. waaye du wax jiñ ciy wax it man gisuma lu ko fi jar. avion bi kat ka kayit yi kay turu Macky Sall nekku ci. ni gis nga Ndiaye. waaw am réew boo denkee président bu liggéey. waa da koy bàyyi matuwaay yi nga xam ni moom la soxla ah. pour liggéey. man de wax jiñ ciy toftal dëgg fa la am jaaxal na. man moom wax dëgg yàlla keroog bi ma déggee ni ak président euh, dafa am fa mu demoon ak moromi président am. waaye avion fa la ko bàyyi defe naa dañ koo indaale am na fu ma ko dégg. Mm. defe naa dafa mel ni dégg naa ko ci ay xibaar. avion bu daa paan avion buy paan daal wóorul. baan ñiy wax nii président li mu jëndee avion beeg waru koo jënd moom moment bi mu ko jënd président bu voyage woon ba avion bi paan ñooy toogaat waxaat ni waaw daf ñoo humilier daf ñoo nii daf ñoo manqué de respect nangam donc mënoo leen tere wax. ne président avion bi pour président yi ko moom ak réew mi xaw ma armée bi ko jënd xaw ma lan. Uh-huh. léegi nag nan ko bàyyi rek mu doxal. xam nga avion buy panne lu ciy danger. Eh. mooy amul remorque. te kaw air ba la. <laughs> <laughs> avion moom moo amul amul remorque de. Hmm. gaareel mu ñëw remorque la wala kay teg ma loxo. waaw <laughs> ah, loxo moom kay pour la ñuy wax yàlla yàlla musal. ñaanu ma ko yàlla mais avion bu paanee. Eh. nit ñi njëkk laaj mooy intérim bi kan la. yàlla yàlla musal. ñi koy kaas kon mbaa dañoo bëggoon aw. dañuy bëgg wax non man kay jaaxal na wax dëgg fa yàlla wax ji daal jaru ko fii bi xëy na nag fi réew mi toll après voilà ñuy wax covid 19 bu fi jaar ak fitna jum ñu teg ci wàllu dund ak koom-koom da neex ci xol ngay dégg ñu ne génne nañ somme bu ñu toll jënd ci avion waaye dafa am loo xamante ne bu ñu la xëy ne la ci budget 2019 2020 ko inscrire oon en plus sax euh, Macky Sall moomu roppalaan bi de. la preuve bi muy ñëw fekk na boo xam ne Wade ko jëndoon. te Wade fekk na boo xam ne ci Diouf a ko jëndoon. te buy dem bii fii la koy bàyyi. Ah. donc na gën a bàyyiwaat xel askan wi rek. ñaari ñaari gën a oyofal yëpp rek. nga ñaari poste yi. ku mhm. ko doon jox. ak milliards yi nekk ci àdduna bi yëpp du ma ko jël. muy président Sénégal ak équipe nationale du Sénégal. man dama koy jël entraîneur man ministre enseignement supérieur laa du jël jamais. man yëpp boo jox man dama ba <laughs> ma ci man boo ma ci jox ma jël ko dara saf ma. man entraîneur non yow moom yow moom. <laughs> ma entraîneur équipe nationale daal. <laughs> te wax naa la tontu de daal da nga yaa mën a toog fii de mariage forcé laa ñaar yooyu de moom doy lu sëkk. bu ma xëyee eh, luñ ma dénkoon ci mi Ndiaye bu ma xëyee toog ci réseaux sociaux yor sama euh, portable lu waay commenté ma tontu la. da nga leen di may woy woyu Youssou Ndour ba rek. wommat mbaam. déedéet damay tontu. ki day tontu ki wommatul mbaam de. wala sponsor yi wax nga ni. dama lay doore ak beneen partenaire bu ñu gane si. Mhm. Euh, mu di Optique Vision. Optique Vision plus Sénégal. Ah. Euh, di ñi nga xamante ne ji dañuy liggéey lu am solo ci wàllu lunette. waaye na ma ci dañ ma ci dimbali. déet man kay dem xam nga ñoom dañuy dox ci social. Ah. we semaine bu nekk. Ah. am na bon lunette boo xamante ne ji. waaw ku indi sa soit ordonnance bi. waaw wala ñu defal la consultation. gratuitement. Ah. may la lunette yi mu war a àndal gratuitement chaque semaine. Ah. xalaas dina ko defal nit ku ko soxla chaque semaine. donc kay demal ci Optique Vision Plus Sénégal. woo leen woo leen gaaw 33 821 54 57. wala 77 479 63 Optique mhm. Vision Plus Sénégal. Mhm. xeetu lunette bu ngeen soxla ay lunettes vue de près. yomb lool quinze mille francs ay lunettes euh, vue de loin à partir de quinze mille ay progressif simple à partir de trente cinq mille ak yeneen nag ay ultra UV lumière bleue vert sur mesure anti reflet plus transition lépp am na ca optique vision plus Sénégal mi ngi fi nga xamante ne ji moom mooy euh, Cyprès 2 boo weesoo rond bi nga xamante ne ji moo nekk ci boori hypermarché exclusive mhm. ñoom it ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax beneen partenaire bu ñu àndal di Max Phone mobile mi indi téléphone yu te yéeme bokk na ci modèle Max nga xam ne écran six virgule la mémoire seize giga deux euh, photo yu leer la defal batterie bu mën a yàgg toll ci six mille sept cent milliampères beneen téléphone bi gaa ñiy xëccoo muy Max Phone mobile mooy Max trente Pro ndax yi ci nekk mooy téléphone professionnel yi déjà dañ ko garanti douze mois muy jël ñaari sim connexion 4G Android dix point zéro euh, trente deux giga de mémoire ak trois RAM mooy euh, boobu boobu téléphone. Mhm. ñi nga xamante ji dañu ko soxla mën nañu woote ci soixante quinze 15 66. Mhm. wala 78 568 08 98 ñu laajte xuma euh, Max Fone. beneen partenaire Senwave la ñu andil ko doomi Sénégal yi nga xam ne dañoo nekk ci diaspora bi hmm. eh, nekk bitim réew kon bëgg a yónnee seeni mbokk ak Senwave da ngay yónnee ci loo dul fay dara hmm. télécharger application bi yónnee sa mbokk xaalis mu jot ko jot notification bi dem ci point Wave récupérer ko muy lu wóor muy lu gaaw loo xamante ne dafa yomb ci loo dul fay dara seen Senwave également di partenaire ci xalaas di ànd ak ñun ana Moutine bokku ci mi ngi ñëw établissement waa Kër Serigne Touba Fallé Frère fin du mois nga gis leen ñoom waruñoo teggi. waaw ñooñu dañoo war a ñëw xam nga nawet aussi moom saa ko wax wax yoo. waaw te ñoom ñooy docteur yooyu. Ndiaye motin moom bu ñëwee bu ñëwul yëpp dañoo war a toog fii yooyu ci réew mi moom ñëwee bu ñëwul yëpp. ku koy endossé comme dañuy dañ dañu koy dagg moom. sunu yoon nekkul ci waaw mais garaawul motin na ko jar. ah, ah. da ngay dagg. waaw waaw motin luñ ma dagg ci bu réew ko motin <laughs> lii lañ ma dagg <laughs> sama xarit la. mooy rey yooyu daal <laughs> waaw yàlla yàgg. waaw. Mhm. baan dinañ ñëw dinañ ñëw ci semaine ñaanal jàmm rek euh, tey ñaan yàlla def jàmm ci réew mi. def mhm. ko ci xel yeeg xol fépp rek. ko bëgg jàmm yàlla na la yàlla may jàmm. ko mhm. bëggul jàmm yàlla may yàlla may jàmm xalaas gi aba ma xool. Euh, euh, waaw tey xalaas gi de bari na moom bari na de bari na. am na indi rek am na bu ñu waroon a teg vendredi. waaw effectivement da ko junj. ndaw sa nga waxoon moo doon ñaanal jëkkër ja faatu. anniversaire u décembre bu yegsee. waaw te actuel actuel jëkkëram mere ko ci. waaw mere ko ci. Mhm. waaw ñu ngi ci doon doxi jéegu ma jëkkër ji dafa déglu xalaas bi. Mhm. fekk man ma jël numéro am doon ko woo. Mhm. jotuma ko jëkkër ji woo ma. man ko nag dama la doon laaj. lii nga xam ne moom la sa soxna wax. pour mën a jël version jëkkër ji jox nañu version am waaye dafa fekkoon nag ñu ci doxi jéego vendredi lañu waroon a teg xalaas bi. waaye yàlla def nañu koy jéego yéen ci doon dox maa ko doon waxtaan ak Abba Sànq keroog vendredi nee naa la dañ cee woor na war nañoo gisante wax dëgg yàlla ndaw sax fanaani nag kër jëkkëram biig ci guddi. waaw waaw dox ndaxte wax dëgg yàlla xalaat du toog rek di tegi élément waaye dañ ciy dox su mënee ne dañ ciy dox yi jéego waaye li nga xam ne moo waroon a jàll vendredi mm-hmm. li jëkkër ji joteek waa ji euh, femme bi déglu na ko avant ñu koy teg. Mhm. waa jii tamit déglu ko validé na ko pour ñu teg ko waaye juboo nañ de taxawal waaw. déglu non dooloo dooloo garaaw dafa mhm. wax rek. li li waraloon ñagas ñagas. Ah, mais problème bi arrangé nañ ko. arrangé nañ ko ah problème bi arrangé ba noppi moom li indi woon problème bi yeeg. Ah? waaw mais xam nga day indi du nettilu xuloo sax non soo déglu bi am na solo de. ah waaw ah ban. non non jël benn risque. waa tax ma wax engagé ni buñ déglu duñ xuloowaat. waaw waaw duñ xuloowaat man man maa jël. ban. waaw xam nga rabu àll yi kan moo ci gënoon a rafet. waaw kan la. loolu la toog ci saloo kay la def. voilà xam nga lu ko tax a ñaaw. Mm-hmm. jékki-jékki lii ñu naan ko ni nga mel ma sala mu ne lii doyul non nga lan la. ñu naan ko ni nga mel maa sala mu ne lii doyul. man maa dem. ànd <laughs> man maa fa dem. ànd benn xarit ko def. Mhm. jëli ndaw si waxtaan ak moom dem ca jëkkër ji waxtaan ak moom ndaw sa jël nay bagaasa ñibbi fanaani na biig ci guddi woo naa leen une heure vingt cinq. <laughs> ña ngay noos déglul. te j'ai ma doon jéem a joindre donc moo tax ma ne naa la revenir quoi. voilà pour vous juste que voilà sama jabar la moom laay seeyal. bi jëkkëram génne àddina maa ko jël ak ñeenti bant yi nga xam ne moom la ko bàyyil wuuf leen seen dara manqué wul mais dama gis chaque fois que moom ba léegi dafay xalaat jëkkëram jooju. voilà loolu nag du lu bon mais ci alam bi mu koy defee moo ma neexul voilà parce que chaque fois que mu koy ñaanal ci suma biir kër dafay da koy def benn événement bu bu bu rëy daal boo xam ni vraiment ma damay jàpp ne que moom jëkkëram ci dee sax moom moom la gën a fulaal que man mi nga xam ne maa ko yor yor ay doomam voilà te dama jàpp ne xanaa lu mu ñaanal kële war na ma ko di ñaanal. voilà mais man mi ko yor yor ay doomam kee sax la gën a fulaal que te li ma ci gën a miti nag mooy ñi ko wër ay bàjjanam ak ay ay xaritam ak ay ay ay yooyu di ko digal yoo xam ni dimalewu ko fenn loolu moom ci gën a metti moo tax ma bëgg bu koy ñaanalati mu ñaanalati ko feneen voilà parce que man jàpp naa ne ñaanal eh, ku ku génn àddina sax jarul yenn mumbaay yi wala yenn yenn ampleur yi gis naa ne nag yaa ngi ciy tenté ay médiation lii nga xam ne man ci laa bëgg mu tënku si def ci tënku voilà bu ko bëggee daal xayrul bu ko bëggul ma seeti leneen moom mu seeti leneen voilà parce que maa ngi boobu ba léegi dara manqué wul ay doomam maa ngi soucié ci ci seen i jàng seen dara manqué wul mais li ma ci naqari juste mooy jëkkëram ci nga xam ne heure bu koy ñaanal ci suma kër la koy defee. day dem man j'ai compris que ne la gën a suuf kële lay gën di xalaat sax que man mi nga xam ne man maa ko yor yor ay doomam xanaa normalement man la war a gën a ñaanal sax que que jëkkër man doom yi moom mu ñaanal ko voilà mais nag anam bi mu koy defee moo ma neexul voilà waaw médiation yi ngay def nag gis naa ko en tout cas bu fekkee ne d'accord na ci li nga xam ne moom laa ko wax xayrun bu ñëwee mu delluwaat. xam nga ñu delluwaat voilà mais nag li ma dul accepté mooy mu nekk sama biir kër euh, bu mbir mi ñëwee mu ma ne que kële moom mi ngi fi ba tey moom moo ko yor et tout wala boog bu koy def bu mënu ko bañ a def na ko dem defi ji feneen mais pas ci suma kër. mais ñu ko dar ay xaritam ñoo xam ni vraiment li ñu am li mu am moom ñooñu amuñu ko mais chaque fois dañ koy di ko wër di ko dugal ci yoo xam ni. kenn xamul finalement affaire bi lan na may nirool quoi voilà te loolu bëgg naa nga mu leer ci su ci sa bopp ak ñi nga xam ne ñoo koy déglu et tout. man kenn du ma yaakaar ba pare yàpp nekkuma këram sama kër la ko yor yor ay doom maa ko mënal ma dara day mën a nekk li neex mu toog munu ko mu dem seeti leneen ma dem seeti leneen seen dara manqué wul di koy dundal uuf ko uuf njabootam voilà donc day mën a wëcc su may waaw su ko mu dem ma dem mooy dama dégg laa sa collègue bi laa eh, di wax ci doomu femme bi eh, ne war naa leen war naa leen sóoraale pour ëllëg ak bu ñu tekkee ak nangam sangam man xaaruma ci ay doomam dara voilà man sama doom yi may jur sax di leen defal xaaruma ci ñoom dara pour man c'est un devoir ëllëg bu ñu tekkee yàlla xam kan la ñuy jëriñ ay doomam dama leen di defal rek te yàlla tax. c'est un devoir boo xam ne man maa ko maa koy def mais xaaruma ci dara damay profité occasion bi pour pour pour pour lancer un appel jigéen ñi. àddina kenn takkatu fi jigéen ak ay doomam waxuma la ak ak benn doom de mais ay doom nga yor leen yor seen ndey yor leen seen dara manqué wul mais léegi da ngay jël jigéen dugal ko ci sa kër ak ay conditions yépp mais du la da day mel ni benn wéeruwaay la def moom ma ngay xalaat. am na ñoo xam ne sax seen jëkkër deewul ñu ngi fii di dund xam nga mais seen ex toujours moom la ñu gën a fonk sax ka yow mi nga xam ne yaa nekk ak ñoom di leen defal li lépp. dégg nga lii waa ji wax ni tegal naa ko jabar ji dem ba mu déglu ko. Hmm. man ko nag mm, dëkk bi dafa jaxasoo. Hmm. góor ñi léegi man ak sama morom a ci yem. kenn takkutu fi jabar joo xam daam bàyyi am daam ay juróomi doom ak ñeenti doom ak yu xeetam bareetul de. soo ci amee kenn koo xam ne takk na la dugal la ci kër ci ci ay yenn conditions yi yor la yor say doom da nga koy respecté jox ko cër nekk ci ay waawam lii ngay def ci këram neexu ko arrêté ko su mënta ñàkk nga dem sa kër yaay defe ko fa wala nga dem ci ay mbokkam te ñëw continuer sa sëy jëkkër yombul léegi nag fi mu nii démb ndaw si fanaan waaw léegi man dafa ma jaaxal bon comme histoire boobu lijjantiku na jarul sax di indiwaat mais tey waa ji di wax tey bu amoon jabar am ak ay doom jabar jooju gaañu mhm. anniversaire décès bi ñëw mhm. mu koy euh, fàttaliku ci beneen kër ci këram ci boppam mu koy fàttaliku ci këram gi moom waaw ndax bu ko femme bi wane ne ko li ngay def neexuma est-ce ko neex moom ci ban kër par exemple maanaam waa ji doon wax tey bu amoon jabar ñaan lu ma ko jabar jooju am moom ay doom waaw ba noppi gaañu waaw anniversaire décès bi ñëw. waaw waa ji di ko fàttaliku. ci këram ci këram gi moom waaw waaw ndax bu ko jabar ji wane ne ko li ngay def ànduma ci. waaw ndax dina ko neex. déedéet lu ñu jabar jooju amul droit wax ko. parce que ci biir këram la ci biir këram la. ah déet déedéet moom it mën naa def ci xelam ci ne kii nii takk na ma waaye. xelam mu ngi ci mais na ko def ci xelam. non mooy mooy li ma la wax rek gis nga waxtaan. waaw ak muñ. mooy bokk na ci base lii mhm. téye ab sëy mhm. waxtaan mhm. d'abord ak muñalante bokk na ci lii téye sëy mais bon malheureusement en tout cas bariwul ci réew mi ànd naag moom de moo takk soxnaam moo ko yor ànd naag moom ci soxna si gën a prêter ci moom attention xool li nga xam ni euh, moo koy neex mu koy def balaa muy def dara mu waxtaan ceeg moom parce que bu yégee boppam ci ne soxna si ci ki dem la gën a prêter attention que moom kon am na benn faay bu ci am mais bu waxee ni doom yi mu jur sax yaakaaru leen ba yaakaar beneen doom kenn yaakaaru fi doomam mais àdduna dafa gudd tànk àdduna dafa gudd tànk te te bu muy faral jox aussi que maa ko mënal mënaluma. waaw yàlla rek moo mënal. am na am na yoo xam ni. xëy na li euh, jaamu yàlla du warul génn ci gémmiñ jaamu yàlla. voilà mais def na lu rafet nag. waaw waaw. ñu ngi noonu def na lu rafet sa à li ab jàmbur jógee ci àll ba muy yow mii. Mhm. mu nangu laa déglu. déglu nañu nangul la parce que xam na ne. Mhm. xëy na seytaane jaar na fi mais li nga ko wax. Mhm. njëriñ a ngi ci. mu jëfee ko. loolu it euh, kii de grandeur la quoi. Ah, c'est-à-dire loolu la. liggéey bi kat moom. loolu la par saa yi nga def ci lu baax de. ah de de toll foo xam ni. amatoo looy prouver ci wàllum ay rajo ki télé. da nga yor sa sa sa puso di defar di dem ci ko nangu nga defaral ko. ku nangu ngeefalal la rek ñu ñawal la ba mu ba mu jekk yàlla jàmm yàgg. te ay soppeeku nga de. soo ko piwu mu dama bëgg jàmm rek. daa jëm mag na ñëpp jàmm. am jàmm ak daaw fàttali mais bon. kan la ñu yeggale. waaw waaw na ko ma leen Ndiaye. ban daje nañu femme bu garaaw. femme bu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a xam naa ni xaritu njaay Ndiaye comédien la femme bu ñu wax Nafisatu. Nafisatu dañ koo jàpp. Mhm. Nafisatu. moom mooy waaj a wax lii. déglu li Nafissatou liggéey liggéeyam. moom jëm boppam moom ci boppam mooy wax nii déglu. Euh, business bu may def bu may faral di wax ni du business mbedd. Euh, ce sont des commandes que je reçois ci entreprise de de BTP de construction yi. parce que dama ciy liggéey en tant que assistante donc ma jéem ut trou parce que dama daan négocier prix yi ba sonn après doo si am dara entreprise yi da nga leen di liggéeyal ba sonn mooy loolu ñu gis sa coono. ma ne pourquoi pas man aussi may dem di démarcher au niveau des entreprises euh, que ça soit privé au public hmm, de mon côté proposer leen li ñuy faral di utiliser le plus souvent mooy maanaam tout ce qui est wala matériel faux plafond euh, de ce fait da ngay wax ak fournisseur bi mu la koy jox en gros soo amee commande mu dem mu livrer la ko directement après nga jël li nga moom voilà léegi nag comme commande yi da doon nekk ay commandes yu colossal minimum cinq millions de commande de matériel donc euh, ma jéem di euh, di di ut avance da nga koy jox fournisseur bi avance boobu nag moo waral cotisation yi parce que du tout temps ngay yor xaalis du tout temps ngay mën a avance ay trois millions cinq millions marchandises loolu moo waral cotisation yi nit ñi di cotisé minimum deux cent cinquante mille nga am cinquante quarante ou trente pour cent de bénéfice si li nga dugal en un mois maximum quarante cinq jours mooy délai yi may joxe de ce fait euh, bu jotee kenn ku ci nekk jël sa comme tey jii nga cotisé woon cinq cent mille tu vas te retrouver avec deux cent wala deux cent mille parce que ça dépend aussi si marché bu muy dugg bénéfice bi ñaata lay toll marché bi nekk en cours nag bénéfice bi quarante pour cent la. ku tey jii cinq cent mille tu vas te retrouver avec deux cent mille francs de plus à la fin du mois voilà hmm, léegi si tu as d'autres questions aussi nga nga nga laaj ma ma ma ma tontu la aussi hmm, marché yi mën naa am quatre commandes dans le mois yi nga xamante ne am nañ doole mun nañ bokk deux à trois wala quatre commande am na ñoo xamante dañ lay bàyyi ak sa xaalis naan la bu génnee rek dugalaat ko feneen muy jur mais ma leen di defal mise à di leen wax am nga fi temps bu dee tamit dangay bëgg muy dugaat di jur loolu yëpp damay jël samay devant di laaj nit ñi comme sa xaalis bu waree génn nga am nga war a am 700000 par exemple danga may wax ba xam 100 pour cent yi ngay dugalaat ba xam 50 pour cent ngay dugalaat wala 25 pour cent ngay dugalaat ainsi de suite. de façon man ah de côté man dinaa def kéemtalaay kàttan nit ki di am information qu'il faut bu bëggee dugalaat bu bëggee jël xaalisam bu commande bu bees amee ah, bu bëggee bokk ci commande yu bëri ah, képp ku ma jox xaalisam aussi comme li may def dafa xaw a informel tuuti dama lay defal décharge jox la sama carte d'identité d'identité aussi photo ko sur WhatsApp yónnee la ko et tout. 54 millions. 289 mhm. mille 654 la dóor ñi nga xam ne ñoom la dóor. waaw collectif des des des victimes de Nafir Satou Gueye. <laughs> musuma gis. ñii ñoo fay. ñii ñoo fay ñii ñu dóor. wax ni kenn gënu leen organiser man ni Nafisatu def ba dóor leen man moo ma jaaxal ñi def seen collectif. waaw ni mu def. collectif des victimes de Nafisatu. ni mu def ba dóor leen déglu leen. ayca waaw bon femme dafa dem wër. dim dafay liggéey si entreprise BTP day day jot ay commande entreprise yoo xamante ni du am xaalis bu mu ko bu ko bu mu ko financé léegi day wër di naan ku bëgg a cotiser soo cotiser un million par exemple da ngay am quatre cent quatre cent mille c'est-à-dire da ngay am quarante pour cent de bénéfice tous les quarante cinq jours bon mu def ko plus de vingt personnes buñ biñ ko calculer plus de cinquante millions la la la la la jël jékki-jékki rek bon ne dañ ko arnaqué bon bi mu waxee dañ ko arnaqué ñu ne ko meew kooku naka la la euh, naka la la arnaqué mais bon mu ne non man léegi sama def naa plainte bi daal section recherche waaw bon léegi daal mu ngi mu ngi section recherche Colobane léegi nañ bàyyi justice def liggéeyam bon léegi si ñun am kenn ku demoon section recherche pour vérifier bi mu demee vérifier ñu ne ko tudd Nafissatou Gueye defu fi plainte bon mu ne ñu woo ko téléphone ne ko kan nga jox plainte bi mu ne un euh, Mané gendarme Mané ñu ne ko Mané bi fi nekkoon jóge na fi y'a plus de deux ans bon dama lay fàttali tamit liñ ma li ma lay wax nii c'est c'est mois de février ah mois de février tey tey le vingt xaw ma ñaata mai lañ koy doog a laajaat ko woowaat ko téléphone laaj ko mu ne non non sama avocat jël na ko yóbbu na ko dik bi mu ko yóbbee dik daf foofu la déposé transféré plainte bi foofu. boo am benn waay bu jegee gendarmerie dem dik pour renseigner wu bi mu demee ñu xool ci registre bi amul kenn ku fa tudd Nafissatou Gueye te nee na avocat am Mamadou Diop la tudd ñu xool registre bi amul Nafissatou Gueye bu def plainte amul Mamadou Diop bu def plainte bon ñu doog a xam ne nag kii dafa jaar ci ñu kaw bon ñin ñi commencé dem këram parcelle fi muy sëy mu jékki-jékki génn kër ga il paraît que mu demoon kër yaayam làkkatu foofu ñin ñi commencé di ko fa fekk mu toog un bon jour foofu nag ne fes kenn xamatul fu mu nekk. xam naa ne ñàkkul ne dafa am ay complice loolu laa ko mën a tuddee en fait. ki ma xamale ak moom sama xaritu benn bakkan la vraiment mu nekk koo xam ne dafa sori ci man trop a gis benn femme boo xam ne xam na ko bu baax wax dëgg yàlla. day am ay marché day gagné ay marché ay yoo xamante ni léeg-léeg day liggéey nguur gi léeg-léeg day liggéey ak entreprise yu mag yi. di gagné ay marché mais du am xaalis mais su gisee ñoo xamante ne am nañ xaalis ñu jël seen xaalis da koy investir comme ça ngeen mën cee am ay pourcentage par exemple bu fekkee un million nga ci dugal un million bi su maximum daal quarante cinq bu matee quarante cinq jours. quarante cinq jours mooy durée bi gën a yàgg bi. su fekkee cinq cent mille day nekk day nekk day nekk maximum minimum day nekk deux cent mille day génnee day jur deux cent mille quoi. muy nekk 700000 ci noonu daal lañu ñu gëm la woon ay 40 pour cent ngay gagné des fois marché bi mën naa évoluer ba euh, pour cent yooyu la ñu gëm la woon mais ñun xamuñ na mais ki ma ci dugal man moom laa xam. ba ñu dégg nii mu ngi euh, maris. bon tey nag am ñu jóg dem maris. di wër di wër di wër di wër di wër ba xam fi mu nekk. mu jëloon benn studio dëkk foofu moom kese bon tëdd suñu xaalis. léegi ñu téléphoné gendarmerie gendarmerie bi ñëwee dañu fëgg bi ñu fëggee ba sonn ubbiwuñu ubbiwul gaa yi ne mënuñu dajj bunt bi mënuñu def dara parce que amuñu gan autorisation pour dugg ci biir ñu toogaat ba mu yàgg ñu waxaat ko waa dig parce que plainte yi ñu ngi partout bon léegi waa dig ñëw tey fa lañ ko fekk fëgg ko forcé ko mu génn jàpp ko ay 19 heures sànq lañ ko jàpp de ce de ce samedi euh, léegi mu ngi dig dégg nga loolu. bu baax a baax loolu ñenn la ci ñim ko def. soo bëggee ñu continuer ci ci collectif bi la bokk. collectif bi am na ñeneen soo bëggee ñu continuer. mais lan moo tax ñoom euh, ñu nekk ay commerçant yoo xam ni seen ut dafa metti fi ñu jaar bu ñu la ko waxee nga xam ni ñii dañoo yeew dañoo fin dañoo muus lan moo tax yii di yomb ci. yow soo ñëwee ni ma am naa benn femme boo xam ni man mi nga wóolu yow yow soo ñëwee wax ma ko ah yow laa wóolu du femme bi laa wóolu ma jox la sama xaalis nga joxal ma ko femme bi ou nga yóbbu ma ba ci femme bi. ak femme bi ni muy ñëwee waa ji mi ngi ko expliqué oto bu sedd guy lay ñëw gaare. yaa ngi dégg. Hmm? sanse ba rafet noo déglu déglu. Euh, moo ma ci dugal vraiment. léegi xaalis bi niñ ko koy joxe joxee euh, niñ ko joxe xaalis bi mooy dalay bindal ay désastres. bind bind ne sëñ Abdou Khadir jox naa ko lii def na jox na ma lii bindal naa ko lii ak lii marché bi nii la diire nii lay nii lay tef lii lay jur xaalis bi fii lay dugg envoyé ñu envoyé ñu dépense bi ak euh, euh, pièce d'identité am pour wóoral quoi vraiment tamit mu nekk nit koo xamante ni tamit euh, dafa innocent trop parce que boo ko gisee day nekk ko yiw vraiment du siggi sa xool la du siggi xool la tey it dafa teey day maanaam bu la waxee daal lu mu la wax automatiquement daf lay doy parce que te ku la ci dugal ki la ciy dugal ci marché yi ci ci kii yi tamit business boobu da lay parce que koo xam ne ku la wóolu ko wóolu lay doon waaw nga xamante man ki ma ci dugal dama ko wóolu trop moom a ci dugal vraiment ñu dem ñu dem keneen ki ma ko présenté euh, kooku tamit dugal ci ay nit wax dëgg yàlla mu leen di defal ay décharge marché yi di dox normal mais dafa jékki-jékki rek daal di def tànk bukki doon ne la ay marché BTP day am ay camion day liggéey ci ay wàllum bâtiment man nag ci wàllum bâtiment la jaaree man dana damay liggéey ci wàllum bâtiment vraiment di am ay marché yu am solo yoo xam ne nii daal macha allah loolu la ma gëmloo te it gis naa ko ndax ni ma ko gisee mooy comme que man da commerçant la otoom daal la taal maag sama benn xarit bi ci boole man moom mm, boolewuma ci ay nit parce que comme nga mbirum xaalis la dama ne woon fu may dugal sama xaalis naa fa dugal sama xaalis rek ak sama xaalisu mbokk mais du ma jël ab jàmbur di ko ci dugal ndax xaalis dafa doy waar xaalis dafa doy waar trop. moo tax ku sama mbokk daal bëgguma la ci woon a dugal sama mbokk yi laa ko wax sama ay mag yu jigéen ñu jël seen xaalis jox ma ma dugal ko ci vraiment li ma ko ciy dugal nag dafa déplacé wu ñëw sama buntu place taxaw euh, yor oto bu rafet macha allah yor oto bu rafet euh, aju weer yi climatiseur ko ba mu sedd clim ko ba mu sedd macha allah. maanaam teg ca oto ba biir oto ba lu ne mbuus gu ne mu teg ko fa mbuus yoo xamante ni ay banaana yi ay pomme fruits yi yi yëpp daal di ñu wan ne daal moom c'est bien quoi moom daal vraiment euh, vraiment daal moom mi ngi ci jàmmam mi ngi ci jàmmam bu baax biñ koy jox xaalis bi tamit mu ñuy wan ne yu yi du ko jël parce que day xaw a niroog foofu bi kay entreprise yi ko jël di ñu gëm moom daal moom moom soxla wut xaalisu kenn te it loolu mu ñuy gëmloo moo nekk ci kanam bi boo ko xoolee automatiquement dag naan kii sonnul fekk ne yooyu yëpp ab dóor la yooyu yëpp ay dóor la ndekete amut sax moom oto waaw amut oto wala bu amee oto ci suñ xaalis la ko jëndee vraiment euh, waaw liñ xamee ni nga xamee ne amut oto yëpp jëkkër ji la bi affaire yi feeñee man moom dama ko woo maanaam dama ko woo soxla ci moom xaalis bi ma ko woowee soxla xaalis vraiment cent mille francs rek laa soxla woon boobu man euh, par rapport ak li ma ko joxoon parce que ay jox naa ko vraiment dama ko njëkk a jox un million joxaat ko un million jox ko jox ko cinq cent mille muy deux mille deux millions cinq cent deux moom ma soxla cent mille rek ci deux millions cinq cent yi mujj ma ci jot bi mu naan ma famille génn na fekk na man ma lijjanti bu yàgg ma ne ko kon dugalaat ko ci marché yi mais loolu teyoon na sama xel mais comme que dafa am koo xamante ni moo gën a xam nitu dakaar ma boole kook moom te kooku laa wóolu parce que kooku moom laa am ci moom confiance moo tax ma dugal sama xaalis mais moom wóoluwu ma ko mais wóoluwu ma ko wax dëgg yàlla su ma ko wóoloo kookoo tax ma wóolu ko xanaa gis gi ma ko gis mu ne niru ma innocent vraiment kàddu gi kàddu gu sedd mu nit koo xam nit nit koo xam du siggi sa xool la vraiment da ngay yaakaar ne kii ku baax la ku ku am ku am dignité la ku am yar la ku am ay teggin la ku sell la kon nag naan kii ku baax la fekk na ndeysaan demewul noonu dina génn ma ne ko kon baax na trois jours yi jot dégguma ko quatre cinq jours dégguma ko ma woo ko mënuma ko jot ma woo ko jot ko mu ne ma waaw sëñ ji li man de maa ngi la bëggoon a sax jot waaw maa ngi la bëggoon sax jot ndax fan yëpp damaa nekk ci ay ay ay xat-xat ay xat yu xaw a metti ma ne ko ah bon mu ne ma waaw ma ne ko ah loolu de day na mu ne ma man daal sama fournisseur bi ki ma doon liggéeyal fournisseur bi moo moo viré xaalis bi eh, daw kenn gisu ko waaw loolu daal la fournisseur bi def jël xaalis biñ jël xaalis bi doon liggéey lépp viré ko daw loolu daal la def ba maa ngi nii sax digg laa jóge porte porte naag fa police ma ne ko ah noonu la demee mu ne ma waaw ne ma ne ma sëñ ma lay sax expliqué naa ko affaire bi ni mu demee ma ne ko yow fekkee noonu la demee daal yàlla na ko yàlla nit c'est grave trop léegi moom fu ñu ko fekk bi ñu koy jàpp. mars lañ ko fekk euh, gis nga vidéo bi. ni ñu ko mm-hmm. ni ñu mm-hmm. noonu yóbbu ko. Ah, kii la waaw waaw waaw waaw. pareegul de am ñu yemale ko fi rek. nañ ko fi yemale nañ ko yemale mm-hmm. mais en tout cas laal waaw ah, léegi ñi nga xamante ne bëgg nañoo gis. vidéo ah. arrestation dina ci xaj. waaw xoolal ñi nga xam ne bëgg nañoo gis vidéo arrestation bi. waaw suñu Instagram xalaas a ngi ah. waaw xalaas l'officiel. maa nga ca waaw euh, xalaas RFM l'officiel. mi ngi ci biir. dinañ ko gis. Ah. comme ñun mënuñu ko wane. Mm-hmm. ñu jaar ko fi. ayca déglul ayca. ko yàlla nit. moom mi ngi dëkkoon ginnaaw police parcelle. police bi ci bii ci parcelle ci ginnaaw noonu rek la dëkkoon soriwul police bi fii la dëkkoon nekk kon nekkoon ak jëkkëram ak ay doomam kon ñun amoon nañ fuñ ko fekk ci jamono yi di muy enquête suñu xaalis. ndax nekkoon na ci lu leer nekkoon na ci maanaam di yor jëkkëram ak ay doomam di gérer foyer kon kooku am na ci lu mu nekkoon loo xam ne da nga naan kii te lu ta def kenn lu lu bon. beneen bi tamit euh, beneen bi mu biñ bim bim bim bim bim defee luuxur gu mag gi ba nga xam ne xamuñ fi ne ñu lijjante ba xam kër yaayam waa tiwaawoon pël dem waxtaan ak yaay ji expliqué ko suñuy suñuy li doomam def ak affaire yi waaye yaayam dafa jël ay responsable am yëpp daat koy génne daat koy daat ko ciy daw daan ne ba ngeen di seq moom sama yoon nekku ci xaw ma ko woon problème mu Nafisatu man mënu ma koo réglé sama yoon nekku ci bi mu bi mu bi dafa divorcé seen kër ñëw na fi am fi 15 jours jékki-jékki génn sama kër dem ñun amuñu accès ci moom moom moo lay soxla rek jot la soxla benn affaire jot la waaye yow munoo koo jot. vraiment tey it bi muy daw dafa nekk en dafa dafa nekk jigéen gu wérut dafa dafa dafa ëmb euh, wax dëgg yàlla ta doon na wax sax waxi waxi waxi waxi maanaam maanaam wax joo xam ne daal waxi xaroog yooyu daal xam naa la jubloo woon a wax foofu. waaye li wér wóor mooy man personnellement. sama avocat am na ko ma loon booyaloon section recherche ma dem fa def samay plainte jox leen sama ay fee yëpp waaye kooku xam na nafisatu bu baax gendarme bi mi ngi ma mi ngi ma wax ne ma nafisatu fii nga toog la toogoon dafa am kum dóoroon 3 millions ñëw fi ma jàpp ko pour mu leeral moom automatiquement sax dafa jël yaayam dafa dafa jël dafa woo yaayam ci sama kanam di di lakkanteeg moom yaakaar naa ay am na lu mu lakk daal xam ma bambara la xam ma soose di ko wax ne ko nafisatu encore beneen plainte ñëw na fi su fekkee nangam woo ko mu ñëw wuyu si loolu gendarme yi wax nañ ko kon kooku xamoon na xamoon na nafi xamoon na xamoon na nafisatu bu baax xam na ne nafisatu dóorkat la kon nafisatu yàgg naa dóor ay nit teyit dóoruñu ñun dong ñun dañoo feeñ ñii rek ñun dañoo feeñ ñii rek xamante suñ biir waaye am na ñeneen ak ñeneen ñu mu dóor ñoo xam ñu ngi koy wër te xamaguñ ci moom dara. négligé dóorkat yi danañ rey askan wi ñi nga xam dañoo bëgg a jub dóorkat yi danañ leen rey jeexal leen takk te nit bu sësee dina def sax lu mu bëggut a def vraiment nit bu sësee kuy góorgóor du liggéey di ñaq ah di ñaq di di di dajale as tuut di dajale as tuut nga fexe ko dóor ba ba ba dóor ko mu dem fam yaakaare fa la mën a amee dëgg yoon fexe fexe fexe def ay pexe ba bàyyi ko wala ñu tëj ko ay ñaari yoon ñaari ñaari ñaari fan génn ko ci dëkk bi muy wër di noose xaalis bu jàmbur loolu moo tax mbon gi ak càcc gi looloo tax mu bëri looloo tax kenn du bàyyi sàcc waaye yoon bu dalee ci kawam bu baax ba ay mbokkam xam ne yoon dal na ci kawam bu baax keneen ku ko xam ngeen jeebaane ko ñëpp jot ci kàttanu yàlla keneen du tala dóor waaw sinon bu ko yoon bàyyee teg ko teg ko teg ko loo xamante ni ay daan yu yamamaay nit ñi dinañ di sa sa sama saar gi nga xamante dañoo bëgg a jub sax fa la ñuy jaare boo moytuwul di dëng. xalaas. Njaay mi ngi noonu. Hmm? man nag conseil bi may jox nit ñi mooy décharge yi gis naa ko. gis nañ ni gis naa ni euh, may remercier Passepartout ci mi mu doon def recoupement yeeg yow ñoom seen. liggéey bu am solo la ci liggéey waaw voilà. félicitations félicitations c'est ça. léegi dé décharge yi liir naa ko mais décharge yi en général du ah, du ndaw si defu ci numéro carte d'identité mais envoyé na leen carte d'identité mooy conseil nit ñi nañuy exiger ñi nga xam ne ñoo leen yoreel xaalis décharge boo xam ne dañuy dem police légalisé ko wala décharge bi gën a wóor mooy Mouhamed Ndiaye maa ngi lay jox 500000 dañuy dama lay mbaa ñu filmer <laughs> ma ne man Mamadou Ndoye Bane am na ku fi ñëwoon defe naa ba ma ko doon jox oh, fii xaalis bopp ci kanu passeport daa ree bay raam ma baan nii nag man ko de ndoy Bane daa weexu donc man de ndaw si dama ko doon jox un million jàmbur. wala filmé ma filmé ko. man man Mamadou Ndoye Bane. maa ngi jox bu cinq cent mille bu ma la koy jox. maa ngi jox maa ngi jox Mouhamed hmm? Ndiaye. Ah. un million yu ma diw jox pour ma jox la ko. dama koy ma filmé la ko téye film bi yónnee ka ma jox xaalis ba. Hmm. film bi daal di yónnee benn téye benn. xanaa loolu décharge bu leer rek. boo xanaa boo ko séqee koo xamul. waaw waaw léegi nag léegi nag loolu mooy. léegi nag loolu mooy erreur bi nag. léegi ñi nga xam. waaw hmm. ñoo lay dóor waaw loolu mooy problème bi. ñi gaañu ñu ah. ñuñ mi na leen gaañ. c'est xam nga tey man ban boo ma doon jox euh, un million vingt millions. di mm-hmm. xam nga doo ma filmer. Mm-hmm. parce que rafet nga njoxtu ci man. Mm-hmm. rafet njort gi nga rafet njort ci man moo lay sànq yow. mais yow man bu ma la doon jox 500000 sax yow man dama lay filmé. damaa bëggul nag yow <laughs> bi mooy. yow moom sa dara dara dara doy ma yow ni nga mel ci réseaux sociaux yi. da da da na. li ñuy wax ci ñiy dóor. waaw. ba jàpp leen yóbbu leen ci yoon. Hmm. nañ ko wax ci agresseurs yi ban indi fi xalaasu agresseurs yi. maa ngi ni ñu rakkaajoo fi ñu toll nii tembe tembe. agresseurs yi moom yàgg nañu rakkaaju mais maa ngi fuyati cité police ak gendarmerie vendredi samedi dimanche liggéey bu rëy liggéey nañ ko ci dëkk bi yéen nag da ngeen ni teel a tëdd moo tax. mais liggéey bu am solo lañ liggéey ci ci ci ci ci bi. Hmm? la police et la gendarmerie ma leen di félicité ci loolu. man maa ngi woon ci tali bi ba cinq heures du matin. jàpp nañ ay gars yu bari ay agresseurs yu baree bari yamba bu baree bari ak drogue bu baree bari ah lool nañ koy nañ koy baral di féliciter police directeur police bu bees bi ñi mu ñi mu tàmbalee baax na lool lool lool ak ak la gendarmerie dix heures jot na bulletin góor jigéen yi nañ xam ne fii réew mii du réewam góor jigéen njaay taxawal foofu lool dafa am solo ah, may wax ci góor góor jigéen yi